wax ci ay lettre yu ñu ko yónnee muy leetar yoo xam ne yi su fekkoon ne dañu koy wàññi ci kees yi ak li nga xam ne lu luy génne ci kamiyon dañuy wax ay milliers suñu bañu na fenn naan ay dizaine de milliers wala centaine de milliers jéggi na dayoo ci ay lettre yoo xam ne yii ay nit a ko ko bind moom di ko ñaan ndimbal ndimbal loo xam ne nii nag ci benn mbooloo mu taxawal ñu tudde ko fondation fondation bi di di dimbalee ñu ne benn waay moo ko posté wax ne Marème Faye Sall day dafa woote pour ku ko soxla nga bind def ci sa carte d'identité sa copie carte waaye nee na wax ji jógewul ci moom jógewul ci fondation bi ba mu ko defee rek ñëpp dali riirandoo yónnee ko ay leetar ba mu mat camion boo xam ni bii suñ ko doon benn bennal di ko wàññi nga xam ni wut na daanaka ci image yi ma seen lu jege fukki nit yu ko koy triyeel di ko ko di ko ko tànnal loolu nag eh, yaakaar naa ne waroon na doon ab jàngukaay nee na dana ca def kemtalaay kàttanam dana leen jàppale bëggula tas seen yaakaar jàngukaay bi nga xam ne moom la ci war a am loolu tubaab di wax baromètre nattukaay mooy mu xam ni kon réewum nit ñu sonn lañu nekk nit ñu sonn ay citoyen yoo xam ni yii ñi ngi ci njàqare ñii feebar ñii ñu dëkk ñii xarum tabaski te donte nag warut tax nit ki di daw di dukk dukki kon nga ne soo wax xaram tabaski da ngay wax lekk ak naan ndax mën naa am buñ leen ko joxoon du yem ci xarum tabaski rek kon loolu yaakaar naa ne li ma ko waxoon waxoon boroom këram moom lañ ci waroon a yëg ñoom mooy déglu peuple bi déglu kàdduy peuple bi déglu jëfi peuple bi déglu réaction yi peuple bi ma ne woon ko conseillers yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu leen di fal ci façon falin woo xam ni am na ci ñu ma ci xam ñoo xam ni compétence yóbbuwu leen fa maanaam jànguñu lu jëm ci lañ leen fa bëgg a dëj pour ñu def ci conseil conseiller lan lan la ñuy conseiller kuy conseiller da ngay jàng dara ñu ne conseiller en communication conseil en affaire en affaire politique conseil en affaire religieuse ay ca ñu ne kii kat loola da caa jàng ba am cay diplôme nga xam ni moo ci ëpp njiitum réew mi xam-xam saa yu soxlaa ko mel noonu woo ko mu mu conseiller ko waaye conseiller yooyu nekk ci pale bi xëy na ñëpp du du ñëpp waaye ñi ci ëpp ñi ma ci xam boog mënuñu lañ leen di def loo kon ñu dàqoon leen ñu dem moo gën ñu bañ a lekk alalu réew mi bañ faa nekk nag ne lijj lijjaaral xatal la bu ko defee yow nga dem ci réseau sociaux yi pexe amul bërëb la fa ñu la fay ñag waxoon naa ko ko nga jël téléphone bu baax bu am carte mémoire bu baax bu am capacité bu baax ngay dugg ci réseau sociaux yaakaar naa nag mi ngi koy def it nag ndax bu demee ba xam ni am na ñuy def loolu mu ko doon waxee kacci kacci mooy mi ngi koy xool baatu dégage ak leneen ñu la mën a wax loola da ngay jéem a seet gémmiñu ku ko wax kan la xëy na am na ci ñoo xam ne ñoom ils sont pas objectifs bari na ci ñoo xam ni ñoom xëy na partem lañu ñu contre jëmmam moo leen neexul am na waaye am na ci ñoo xam ni peuple bi lañu ñu kon ñooñu su leen doon déglu bale ña nekk ca pale ba di lekkum xaalis daq leen ñu ñibbi ci seen kër yi amaluñ ko njëriñ amaluñu réew mi njëriñ di dem ci internet di dem ci réseau sociaux yi di xool commentaires yi di seetaan vidéo yi mu jëlal ko temps bu koy permettre mu mën a xam liy xew ci réew mi bu ko defé su boba day dégg ci nopi bopam di gis ci beuti bopam clameur du peuple loolu mooy cosaanu brassard rouge bour bu ko waxone peuple bi ne ku ci am lula la naqari lu xonko wala nga sol lu xonko madame am na warone ci malaat yooyu nga xam ni moom nga wax ni danañ leen dimbali mooy doon objectif première premier objectifu fondation bi dimbali ñu feebar ñu faju ji wala ñu évacuer leen man de madame su ma la doon conseiller dama naan nga wax sa jëkkër ni ko mu fexe ba hôpitaux yi nekk fii ci réew mi am qualité de soins am matériel am personnel boo xam ni bii bu qualifié la loolu moo doon ëpp njëriñ ci ngay lijjanti ci xaalis boo xam dañ koy évacuer te ñaata évacuation xaalis boo xam ne bii dañ leen di yóbbu di leen faji bitim réew te hôpitaux yi melul ni mu war a mel kon exemple xaalis bi ñu def ci terre bi xaalis bi ñu def ci stade yi xaalis bi ñu def ci arène yi loolu nga waroon a wax monsieur ne ko xaalis boobu ñu def ko ci hôpitaux yi def ko ci université yi xale yi nga xam ne amatuñu fuñ fa tëdd def ko ci euh, école primaire yi nga xam ni am na ba tey abri provisoire defoon ko foofa moo gënoon defoon ko fee loolu su ko fa defoon madame nit ñi duñu soxlawoo def ko ci subventionné prix yi ñu wàññi ko inflation baa ngi rey peuple bi loolu ku amul kër yor ko munoo xam li nit ñi jànkonteel juróomi at ci ginnaaw fukki junni ngay yor dugg ci butik xaw a jënd sa dundu weer fiñ tollu madam fanweeri junni boo ko ŋàbboon dugg ci boutique mënoo cee jënd sa dundu weer loolu nga waroon a wax sa jëkkër ni ko mu subventionné yooyu bu ko defee su boobaa ñii la yónnee leetar yi ñoom duñ la ko yónnee ndax duñu nekk ci njàqare gii ñu nekk duñu nekk ci njàqare gii ñu nekk madame mën na na laa laaj benn question kan moo lay financé kan moo lay financé xaalis bi ngay defee loolu foruloo ko te madame xameleesu la métier moo xam ni nii danga ciy am xaalis doo woon milliardaire doo millionnaire ci li ñu xam ñun ñëpp kon xaalis bi du lu wadde ci ay garab fan nga jële xaalis ndax ay citoyens sénégalais ñoo la koy jox entreprise yi wala ay bonne volonté simple ñoo jël alal ji di la ko jox su fekkee ne ñoo la koy jox ci réew mu normal dafa waroon a leer ñu xam ñi la ko jox ñan la jaadu na ñu xam ñet ñoom jox giñ la ko jox lu tax ñu jox la ko ñu xam lu tax su dee ay privé la ñu xam ñoom privé yooyu lan lañ ko joxe giñ ko joxe ñoom it lan moo tax soit muy citoyen boo xam ne xëy na yorul entreprise yorul dara d' accord mu lay dimbali waaye alal ku ko yor ci réew di ko manipuler dafa war a leer madam xaalis du ay caaxaan su dee altam ba tey bitim réew la jógee war nañu xam ña la ko jox ci bitim réew lu tax lan mooy contrepartie bi lan lañuy xaar ci loolu on donne pas de l'argent pour rien wala su fekkee ne nag dañ leen a forcé ci joxe ko ba tey ñu xamit nag ni amuñu pexe dañ leen koy jox kon dañ leen koy joxe loo te sañuñoo bañ loolaat lu jara lijjanti lay doon su dee nag ba tey xaalis bi nga xam ni moom la ñu jox sa boroom kër ni ko xaw ma caisse noire la ñuy wax xaw ma fond politique xaw ma lu mu mën a doonati su dee loola la loolaat taxu ko woon a jóg moom su dee lool la moom loolu taxu ko woon a jóg kon mooy budget boobu ñu koy woteel moom it ëpp na ba moom itam soxlaatu ko konit it lu jar lijjantee ngi noonu lu jara a lijjanti ngi noonu ñi fi nekkoon ci jiitu sa boroom kër seeni soxna amoon nañu ay fondation Elisabeth Diouf ak madame Wade yëguma fenn nag fu ma déggee ñu mës leen a audité mësuma ko dégg biñ fi jógee tamit alal ja fa nekkoon lijjantiwuñu alal jooju fan lay mujj ba tey waxatuñ ci fondation yooyu kon jaadu woon na alal jooju buñ fi jógee peuple bi nga xam ne bii mooy peuple sénégalais te nga xam ne ñoom ñooy lépp nag jaadu woon nañ ci ñu xam alal ji fondation Élisabeth Diouf amoon bi mu fi jógee fu mu dugg alal ji fondation Abdoulaye jabaru Abdoulaye Wade nekk yoroon fan la dugg loolu mooy tax tey jii ñu yaakaar ne tey boo fi jóge yow it sa li nga yor danga ko leeral ba xam fi nga ko jëlee woon fan la jóge fan la dugg loo ci réaliser loolu lu jaadu la ci réew moo xam ne mii day dox ko defee nag yaakaar naa ni lii may wax boo ko déggee baax na bu ko ko mën a jottali baax na xel la rek ak xalaat dégg naa wala fi naan xel bu doon jaay du day lamb waaye comme nag dañoo bokk li nga yor nga am foo féete ci fi ñu ne day jaadu ci ñun suñu dee say mbokk bu ñu gisee lu lënt te jaxasoo ñu wax la ca lañ ca xam yàlla na fekk nag nopp di jëriñ dégg xel di jëriñ liggéey xol di nangu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.